cinq m TV Sénégal seen YouTube bu am solo abonnez-vous ci 5M TV Sénégal ndax ngay am ay vidéo yu am solo. di siyaar mboolem ñëpp ñu nga xam ne itam danañ topp euh, waxtaan bi ñi nga xam ne daanaka rek li muy doon mooy commenter discours président Sonko parce que bu baax léegi moom daanaka actualité bu tax nit mën a waxtaanee mu fi. waaye bëgg rek di sant ak di ko sant di ko gërëmati ak di ko ñaanalati ak di ko wax ne ko maanaam lu ñu war ñun ñëpp defal nañu ko daanaka rek mu wàcc ñu ndax mbir yi day mel ni fardu kifaaya la woon bu ñu defee mu wàcc ñaa bu ko ñee defee wàcce ko ñene moom daanaka da ko yu yóbbaaleel ñëpp muy wax gi la ma mënta yóbbaaleel kenn nag mooy de mun a yéen ndawi Sénégal yi seen destin réew ak seen ëllëgu réew ak seen destin ëllëg mu ngi ci seen loxo ndax dañ ko seex ak ñoo xam ne si ne dañuy wéy dafa kaay caay te kenn du kor revendiquer su ngeen deful soulèvement populaire wala ngeen jaamaarloog Macky Sall mi ngi du tax seenam réew jaar ci yoon waaw ah, loolu nag euh, ci wax boobu mu wax nag yéen ñëpp xam ngeen ne moom Sonko amu ci benn responsabilité xanaa kay damaa fa damaa wax léegi loo xam su ma ko waxee sax nit ñi jàppe ne maanaam lii affaire fanatique la fanatisme wala par par la wala dara man damaa xalaat ne Sonko waa Sénégal bu ñu yeexee mu jël pépp jël pépét maanaam mu jël ngëneel la ñaari yoon comme ni Seydina Omar ibn Khattab waxee woon daal di ne Seydina Omar ibn sabaxani fi l islam wa sabaxani fi l barzaq aw fi aw fi wa sabaxani fi fi fi l barzaq aw fi sahid mu ne sama rakk saydul xataab jiitu na ma ci ñaari yu yëpp mu ne yiw ba ca jiitu mooy dafa maa jëkk dugg ci lislaam ñu ne dee tawaay mu njëkk maa dee ci xeexal yonte bi sallallahu alayhi bu ñu yeexee rek Seydina Ousmane bu ñu yeexee rek Ousmane la jëm ak ñun c'est-à-dire koo xam ne la ba jàng jotee jàng na mënoon bokk ci mafia bi ànd ak système bi di lekk ci alal ji di am jàmm di am milliard lay mooto di am immeuble loolu lépp mu ne ko fi ñukk teg ko fi dikk fekk si ñoo xam ne ñee ngi jàng seenam jàng paregut ñee ñee ngi wut lu ñu am amaguñ ko ñee ngi wut ay kër amuñu ko ñu salaam moo tax may wax naan bu ñu yaxee rek mu gën ñu ñaari yoon mu gën ñu ñaari yoon te itam lii muy jànkuwante damaa gis ne jihaad jihaad yu mag la joo xam ne ma koy faral di wax aw ma benn hésité te bépp borom noonu lay jihaad jamono bi jihaad ju toll ni yonente yi les sahabatu daan jihaad noonu lay jihaad jamono parce que ñoom liñ daan bëgg daan gën di jihaad rek mooy mooy ñu daal di ñu jël justice rek ñu jël justice fi baax ñu daal di jël justice daal di koy bàyyi mooy lañ naan wala euh, jënam la comme salaan xam xala àla tax di loo dina wa maanaam maandu nit ñëpp yemoo ci suuf yi yemoo ci dex yi yemoo ci alal yi yemoo ci sewnde yemoo ci lépp loo xam ne xéewale lu ñeel àdduna la kenn bañ ko jël bàyyi kenn discours boobu nag euh, bu ma tënkee man lu taqdim boobu ma def daanaka dafa ba jëkk wax ci mbirum Sadio maane daa di wax na sama xaarit la nag sans politique wala dara dañoo yàgg loolu moom maa la wax maa wax fii ne dana dana dana am lu mu coûté Sadio Mané malgré mën na ko bañ a coûté nag publiquement ndax Sénégalais moom actuellement ku laal Sadio Mané seenam noonu ngay yaakaar naa waaye danañ infiltrer équipe bi nag actuellement loolu politique la dana ci tàbbi ndax Sonko moom bu waxee bu ne lu baax ma tax di wax it aw yiw laa ci jublu itam ñu xam ne lu aw yiw rek rek la ci jublu maam képp ku mu xaritool ñoom def nañ lem noonu képp ku noonu ak Sonko yi def nañ lem xarit gannaaw ba Sonko nee na sama xarit bis ni tey noonu a baax a baax na sax man su doon mën a du ma wax ne Sadio Mané nii ak naa ak na du ma wax sax ci kaam du ma wax sax ci kaam damay bàyyi rek ba ba football bi daal bu jàll naa wax nag li xam naa ko wax ak te leeral ko li tax su may wax mënu wax ci mbiram léegi nag dafa wax ni bépp opposant bu mu mën a doon dafa war a nekk opposant bu respectable état bi bi fa nekk en tant que parti au pouvoir di respecté opposant bi di ko ñu ànd di doxal doxal gi mooy parti au bi di exercer di jël alalu réew mi di ko dépensé ci xam di farlu. opposant bi taxaw fee di dénoncé ci lu dul noonu loolu nee na yokk parti pouvoir ba dana yokk sax ñu bi nee na ñoom ñu gën a farlu ci maanaam góorgóorlu ngir am nañu ne ci seen wet ñoo xam ne bu ñu dëngalee rek ñu ne ah gars yi sàcc sàngoo ko nangam ki nangam loolu li nga ciy dégg Macky ne wax a ko dégg mu ne damaa bëggoon yéen ministres yi ak DG yi ngeen góorgóorlu te moytu def la dul noonu ndax ñii ma ko seqal actuellement nii baaluñ ma ma dara loolu kon la muy leer la su président Sonko bëgg a rek mooy loolu waaye day nee moom bu taxawee na maanaam moom ku ko neex jàpp ku ko neex tëj ku ko neex rey ku ko neex nangam ak nangam loolu la nga rek mooy caacaay gi mu nekkee Sonko nee na dégg naa ko fu wax na yéen ndaw ñi yéen laay waxal saye ngeen fexe jaamaarloo kii fi ndax ñoom jàpp na ne du ay carte moo fi jëlee Macky moom bu ko dégg discours min bi daa la neexaay loolu mooy waaye tey jii nee na bépp caserne bi gën a ci Sénégal na dem ba Fongolimbi baat bii la wax na nga fekk minimum trois trois euh, dragon yu ñu fa gaare oto ak matériel d'instruction yoo xam ne ñoom ñoo ko fa ñoo ko fa gaare nag loolu la nga cay déggee mooy kon Macky Sall demee dafa jënd ay gànnaay ngir ba gax ak population waaye loolu man jàpp naa ne fii laa koy waxee ñëpp di ko dégg Sénégalais yi gëm leen ne te xam leen ne na leen wër peng ne maanaam jëmmi Macky Sall ci bu fekkoon ne daa jël mboolem takk der benn bu ne bu mu a doon moo xam ab policier nga moo xam ab gendarme nga moo xam ab ab CFR nga moo nga moo xam ban corps nga yëngoo ci nga xam ne moo ne fii Sénégal kenn ku ne mu jox la dragon jox la bombe jox la fetal jox la oto bu am gasoil wutalub safar bu la ko dawala sénégalais boo romb téela bu sénégalais wàcce jàkkaarloo ñoom tax ñu am ndam te mbir mi defe naan effectif bi e- e- e- foofu parce que ñoom matuñ un million boo leen dajalee matuñ deux millions boo leen luy liggéey fonctionnaire matuñ deux millions yéen ñëpp d'accord ngeen loolu ak ñun te la ca gën a mooy damaa waxoon ne fii ñoom ñi ñoom comme ay tàkkajar fekkoon ne maam li Macky Sall yi bëgg ñoom ñëpp bëgg nañ ko fi mu parce que bu fekkoon maîtrise nañ Seydina Omar Touré ba ba nam war a mel nañ nañ ko bëggee mu dundee dundee leen tey indee certificat certificat dafa dafa verse sax day fekkoon lañ bëgg ci ka nga xam ne moom nekk seen membre d'étatique seen membre compléteur tey jii ci duñ jël ay xabaar ak information di bëggoon bu fekkoon lañ bëgg Sénégal am nañ ko Alphonse Seyni Gueye du bind sans sans certificat bii nga xam mooy certificat médical bi nga xam ne Sarr ci la jëkk daanu et cetera bu doonutoon bu fekkoon ne ñoom lañ bëgg Sénégalais am nañ ko tey jii yi et cetera ñu ànd ak di ko défendre ak Sénégal ni ñu wàccee waxoon naa ko barki dem fukki xale ak ñeent faatu nañ te songoo dégg nga ci mbir yoo xam ne lu ma lu ma doon doon ko rek ñoom ñëpp mën naa leen a jur ñooñay dee nag deewuñu ngir maanaam dañoo dee ngir dañoo dañoo dee ngir dañoo xaru dañoo dee ngir dundug doomu aadama yi ñu fi bàyyi ñoom mooy ñan ñun ñi ñoom dañoo bëggoon ñoom bu ñu dee après moom ñun ñun ñun ñun ñun ñun mu doon suñu noflaay te gépp dee goo gis aw xeet daal di jóg deeyal ko ñenn ña dañoo bëgg ñenn ña am jàmm dañoo bëgg ñenn ña wàppalu dee goo gën a Sénégal dama leen di woo tuul te yéen ñëpp bu ko kenn sàggane ëpp naa sàggane ndax sàggane dee googu moom ñoom combat ba ñu nekkoon ba dee ñoom ñu xëy daal di yàlla benn combat ba sànni ko fële mel ni si combat boobu ñoom ñu doon combat doonul combat ba dekk dara dafa am ku wax Malik koo xam doon xeex ta xasatu Uhud ba ñu déclaré yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal saxaaba ñenn commencé yoon jox ñenn commencé daw ñenn commencé gi seen tànk mu ne léegi lu ngeen bëgg jóg leen ngeen dee ci lam dee woon leen ngeen dee ci lim comme wuy ngeen ko ci lam doon woote jubleen ngeen dee ci lam deewoon ñii nag malgré bu ngeen mënta dee ci lam deewoon itam ngeen fexe ñoom la ñu dee loolu nag ngeen sëtin ngeen te sëtiniral leen ko ba ëllëg bu ngeen gisoo ñoom du rus wala tax saba nan la seen xutula fi sabilillahi amwaatun bal ahyaahun inda rabbi mursaxuun farihina ila axiril aaya ñooñu dañoo dee ngir sahid dañoo dee ngir dem ci seen borom ngir dund bi gën loolu man sikki saako ma ko lan na sukk fiyaa borom xam-xam moo xalaat ndax déewuñ ngir seen intérêt personnel ngir tabax seen kër baay déewuñ ngir tabax ci histoire dañoo dee ngir population bi noppalu ginnaaw bu ginnaaw boobu yi wax na itam ci 43 milliards yi moom président Sonko 43 milliards yi la ci wax ku ne dégg ko daf na yéen sénégalais yi ndaw ñi moytu leen réseaux sociaux yi ñu leen di divertir ci yi nga xam ne mooy yu kenn xamul cest dire mooy jàpp nañ benn journaliste jàpp nañ nangama nangam wala nangama kenn kenn xamul lu mu a doon wala benn site internet wala benn jumtuwaay des communication ngeen di xool boo dara lu jëm ci luy aw leen di laaj mooy xoolal leen seen bopp yéen ñi nga xam ne ndaw ñi wala kon ñun ñi nga xam ne ñoo fa dëkk Sénégal di ay sénégalais mooy moom li mu wax nañu ko settantal ndax biñ ko bi waxee pare mooy Sonko daane tabaxale ma sama kër ma sama kër baay wala wala ma sama njàngam bopp wala fayale sama njàngam doom ndax kàddu yi deen ko ci fekk du ngeen ko ci fekk lu ngeen fekk xam ne day day seen seen réew di yàq seen développement réew rek ne wala nañ ko gannaaw loolu nag bu koy wax moom Sonko taxul wax Sonko lu ëpp ci wàllum bii na bu ba ba concours jotee daal malgré ba liggéey jotee malgré liggéey yombut waaye am na liggéeyam ba am jëmi liggéey ko ba yem ci alal ju dul jeex ay milliards naa ak naa kon kooku adduna li muy jafe-jafe ak tubaab lim ñu noonu not lim ñu téye lim ñuy bonkoos bonkoos moom kër kër na ba ba kër kër na ba ba jéggi mboolem maanaam mboolem euh, yo mboolem yoon yoo xam ku fa jaar boo ko jéggu rek doo torox doo jëriñ day doo jëriñ baay doo jëriñ rakk doo jëriñ mag doo jëriñ doom doo jëriñ kan loo jëriñ dëkkandoo loo jëriñ Sénégal loolu lépp moom jéggi na ko kon lii mu nekkee bu ko nekkee ndax am na lu mu am na lu lekk am na lu naan am na lu sol am na lu fajo am na kàddu gu ko itam ku bëgg waxal waxal lu bëgg a wax wax ko fu ko bëgg a waxee waxee ko am na itam xel mu ko xel mu man a jaar ci fu ñuy sàcc man a jaar fu ñuy sàcc xam fu ñuy sàcc man faa sàcc te ma sàmb yëg ma dem ba yëg kii nag damaa nee na la digalee nee digal loo xam ne ma digal ci ne digal nga ba xam ne man lii sama njariñ képp la man xam ne war na ne lii nii sa sa njariñal bopp nee na def ko ngir sa bopp su ma man nee na def ko ngir la sa njariñ nekk waaye bu la neexee bàyyi maa ngi yow ñu bokk ñàkk kon Sonko lii mu wax nii bu ngeen xoolee ba ci biir njariñam nekku ci njariñ loo séex ak moom it nekku ci seen suñ njariñal bopp képp lay wax kon li wax na Macky Sall 43 euh, milliards yi mu génne maanaam ñu naan ay secret de défense nangam ak nangam nee pouvoir bu ko jox maanaam nit koo xam ne da koy téye téye pouvoir législatif téye pouvoir euh, nu ñu ko waxee législatif pouvoir euh, exécutif ak judiciaire parce que actuellement pouvoir judiciaire ay jamono lu gën a garaaw li te mosu ko yëg parce que li tax mosu ko yëg mooy boobee fa yee xewee ñoom ndong ñoo fa nekk di def la neex te ma sàmb ma demb du yëg dire mooy ñi nga xam ne ñooy assemblée nationale bi nga xam ne tey jii nañ pouvoir bu ngeen seetloo keroog bi ñu installé bureau assemblée beeg ngeen fa naan dégg déggu leen ñu ngi watal teg seen mbir ci yoon force ñu teg ko ci ndax ñi ko seqal la duñu leen a doone gone te gaay nañ leen lu mu leen ko ñoo leen ko ñoo xaax ba ngeen xaax jëf soo ko ko wax ñoo leen ko xaaloo jërë ngeen jëf rafetlu nañ ko ba ci ñun ñii di citoyen yi ba tey doon doy na loolu lañ leen wax loolu lañ leen digal loolu lañ bëgg ci liggéey bu baax a baax ba pare nee na maanaam 43 milliards yii nii nee dana def commission d'enquête commission d'enquête parlementaire te commission d'enquête parlementaire yi Macky Sall daan samp xamoon ngeen moom moo ko jiite woon atam fee ja hôpital bi ci Louga ba ca ah, soxna soxna soxna sa xaw ma def nañ benn commission euh, parlement commission enquête parlementaire ba ñu ko defee tey jii ba tey jii maanaam commission enquête parlementaire boobu état bi yabaloon fa lan la rawee ci mbiree dara maanaam lan la lijjanti ci mbiree dara loolu la ba ban résultat la indi dara waaye dana wuuteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy seen opposition tey jii Sénégal bu leen pouvoir di ko jëlee pouvoir la bi ngeen jëlee pouvoir bi nga xam ne pouvoir judiciaire bi jox ko président jox ko Macky Sall nan la Macky sal def mooy dégg ngeen Sonko nee na adversaire opposition sénégalaise nee na c'est la justice sénégalaise ay waay jël loolu yi wax fan ngeen ko mas a dégg te yéen ñëpp man mën ngeen confirmer fa in xaala xasa faqat sadax bu fekkee ma wax li rek wax na dëgg ndax yéen ñëpp man ngeen ay témoin ay ci lii mu wax ndax nee na Xalifa Sall moo ko wax ne ko man sax laay wax Xalifa Sall yéen ñëpp ngeen fàttali ko ñu koy aat atam mu ne maanaam si juge bi man defuma dara Macky ma fi téye moo la fi moo sant mu téye Macky Sall ma fi téye ma fi téye ci ndigalal Macky Sall tey jii su sama kër tey jii li mu Macky sant di ko bëgg ñoom su ma ko defoon tey jii du fanaan damay dellu mooy ma daal di koy jàppale mu am deuxième mandat bi loolu rek loolu na ko dëgg parce que Sonko ne démb ne démb Sonko ba xam nga ne siis bi ma tëjoon bi ma demee ba ne ci ba dafa dikk daal di ba ne ubbi leen nañ ma ubbi ma génn ma dikkee tax mu ne ma nag ma jéggal ndax indi gi ma la indi fi tegu ma ko fenn tegu ma ma ko ci dara parfois gars yi dañuy sant duñu mën a bañ kon loolu kon boobu moom dafa nekkoon un adversaire politique potentiel bu taxaw bu am taxawaay bu mën a dem candidat mën a empêcher Macky Sall kon loolu tax si bi tey kon li ko wax loolu rek da koy dëggale mën naa la ci joxaat beneen Karim Wade gis nga ko bañ waa waa PDS mooy suñu candidat A ah, sans plan B sans plan B nan lañ def dañ ko boole ak six six aussi daal di damm ay laafam keroog bi ñu ne Sonko mii aussi euh, ay ay renseignements généraux yi ne Sénégal ak mboolem ñoo xam ne dañuy xool ci wàllu pouvoir pouvoir électoral di def ay sondage et cetera ñoo ne Macky Sall 2024

wala fa nga ko jaar ci yaar yi jaar ci palais la ko jaar pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire parce que pouvoir exécutif mooy ñane palais doon ay ay dëkkandoom ñoo ko nañ fexe nuñ ko yóbboo ci justice bañ ko yóbboo justice ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di manipuler manipuler justice justice daal di bind waa ministre ba ministre parlementaire Sonko kon du ñetti pouvoir yi ñoo xeexoon léegi moo tax moo tax mu leen bu leen ko jëm parce que ku ngeen ko jox rek daf leen koy xaaxa daf du ko jël ngir dimbale leen ko du ko jël ngir dara du ko jël ngir itam euh, ngir ngir intérêt yi Sénégal kon Sénégal yi nañu xam nañu ràññee nañu gis ne kii nii di président Sonko yoonu baax la leen jël ñu jaxale wax naa ne bu ngeen ko toppee wala buñ ko toppee yàlla xam ne ne fañ jëm di mënuñu faa yóbbu faa yóbbu waaye mën nañu teg ci yoon woo xam ne suñu ko wàccul ba soo bayal dana yegg fu ñu jëm ndax tubaab yi danoo fekk ñu ci misaal rek yoon nan ñun Dakar lañ ñu nga dem ba Bambey daje tubaab bi tubaab bi dëpp ñu jëmale ñu Linguère te ñun xamuñu ne dañoo dëpp ñu jëm Linguère dikk ba ñu suñ biir wala ko jógee ci àll bu ñëw nañu ah yéen ngeen jaar yoonu Linguère la ñun ñëpp ñu taxaw na ko dëgg la yoonu Linguère waaye nu ñuy def wàññi ko ndax ñun dañ wax na ko leer na yéen ñëpp dégg ngeen ko ku ko def moom wàcc na ku ko deful moom wàcc na Sonko bu fekkoon nam nabi yu la maanaam bu fa xal balaxtari saadati bu fekkoon en tant que homme politique yi boo xam ne am nay conviction mënoo su koo tëkkale ak ko dafa indi ak mu sosoo rafet ak maandu loolu ak maanu nag mooy lii mooy lu tënk am nubuwa innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yonent yëpp alayhi salaatu wa salaam bu ñu dikkee fekk ci nit ñi ay jikkoy rafet moom la nit ñi muy muy maanaam gëm ne am na ku daan sàkk damay kenn muy yàlla te loolu ñun ñëpp wuti ñu man Sonko gënumaa gëm ne yàlla kenn yow mii gënulu ko gëm kon a defaral laataan te loolu bu ñu borom kon mënuñ ko wóotal ak ñu jiitoon di xaax ngir yàlla man de fasuma ko yéene te loolu itam ku ci interpellé laaj ma li ngay fan la ko teg fan fan ko te ci alxuraan ak sunna laa laa koy delloo lii muy daj di am deram di yàqu lii muy daj leena man daayam fa mu nekk jàmm déggu salaam lii muy daj leena fa ay bokkam fañ nekk déggu ko gisuñ salaam loolu lépp bu ko bu wax dëgg yàlla du fekk te wax naa ko waxati ko encore une fois dama koy dama koy am na benn euh, télé de la place chaîne TV sax mën naa ko tudd benn journaliste bi Mame Mbaye Niang bi muy jàng revue de presse bu ngeen ko déggee ni mu jàng revue de presse vraiment koo na lool parce que ni mu jàng revue de presse nee jàpp nañ euh, jàpp nañ mm, Papito jàpp nañ Ousmane Diagne waa mafia kàcc lim na daal len laas moo ko bind daanaka kon nag Sonko léegi moom amatul day mel ni kon ñoom dañoo soqi laafi Sonko ngir mën a tuuta naaw ñu ne ko nii jàpp waaye nag seenam xel na ci rek jàpp ko parce que xam na ne jàpp ko moo leen taxam li ñu bëgg waaye jàpp ko dul noonu ndax waa Sénégal duñu seetaan mukk ñu jàpp Sonko bu fekkee ay gor lañ laa wax bépp sénégalais bu tëdd di xoole bañ jàpp Sonko boo dajek sa borom doo ko lay bala doo ko layoo ba yaay ko parce que la muy def bañ ko jàppee du problème Sonko mooy ne sama day fi gën sama baay daa war a jax képp la wax yéen ngeen bëgg ko bëgg ngeen ko bëgg lu ko dal moo ko ko yóbbee bëgg ngeen ko bëggee nag bu ko naree yóbbee musiba da taxaw leen fasal ko seen ak mbëggeel ci moom kon bëgg googu du dëgg te ay war la wax naa fii bu na Sénégal bañ a yor melo waa Iraq bañ a am ngor bañ a am jiina bañ a ñeme ay bali fetal loolu mënee su ko ñàkk ñeme feeg aw xeet dañoo taxaw ne maanaam du ma dee sama deret du tuur ñu jàpp na ci lii la ñu ameen indépendance xeet wu yon jax wu yambare na xeet wu bàyyi ger alku nañ yonent bi mu ne xeet wu bàyyi ger torox nañu yàlla keroog bi mu yënd yënd bi mu yënd yënd sallallahu alayhi wasallam al islaam la ko wax na fañ na alahaa na ko jàmm indil jàmm xeet yi la muy indi leneen keroog bi mu ko bëggee jël mbir mi taxaw fan la ko jaar yaa ayyuhal-lazina aamanu qaatilu minal kuffaar wal yajidu fiikum ghilzatan wa'lamu anna Allaaha ma'al muttaqiin loolu kenn mënu koo ko dindi laam di jël ay immeuble wax na ko fii dégg ngeen ko yéen ñëpp ko waxoon ko répété waat dana ko yóbbu enquête parlementaire waa gars ndax lii ngeen gis population ndax liberté bi Sénégal yi am actuellement télévision yi am ko rajo yi am ko site internet yi am ko maanaam site internet yi am ko maanaam mboolem kuy wax ci sa xalaat ci réew mi am ko ndax ndax amoon ngeen ko bu jëkkoon amu leen ko woon li tax amu leen ko woon mooy jëmmi productions yi benn lañ woon journalistes yi benn lañ woon dañ daan xëy dugg ci rédaction yi jël xaalis jox leen liñ bëgg nit ñi gëm ko lañ leen gëm liñ bëgg nit ñi dégg ñu dégguloo leen ko tey jii Sonko ñëw na di révèle tey jii daanaka li mu defee macha allah Pape Alé doxuma fu mu nekk waaye xolam sedd na ndax li tax ab xolam sedd mooy lam daan liggéey Sonko jëloon na ko rek di ko liggéey Sonko tey daanaka mooy journaliste investigateur bi déclaration bi sa Pape Alé Niang daan def déclaration yi Pape Alé Niang def tey jii def na ko macha allah maanaam la mu daan investigué di wax tam tey jii def na ko gis lu mu def ci dénoncé bi dénoncé daa ba bàyyi dénoncé ñëw di ñëw ci acte waaye dénoncé bii na ko wéyal ginnaaw Pape Alé soro nañu koy def te am na ay moyens tout est possible pour moom président Sonko mu am ay mu am ay information ngir jottale ko Sénégalais tey jii nii mu def état bi nii mu leen sumee ba ñu seet ak bañ ko ñu bañ seenam réew ñu manqué a yàqee alal ak ñu mën a yàqee réew ni ñu mën a yàqee suuf ak ni ñu bëggee seen bopp ak ñu bañee Sénégal ni ñu bëggee seen njaboot ni ñu bañee njabootu Sénégal tey jii nii président Sonko wax kuy déglu te amoon xel loolu da nga ko ko ci naa dañuy ñëw rek ci arrestation euh, Pape Alé Niang ndax gis nañ Pape Alé ñu arrêté ko am na yenn sax ci ay mbokki journaliste yoo xam ni ñoom taxaw nañ di ko défendre wala taxaw nañ di xeex li nga xam ne moom moo di liberté am ci beneen côté gi ñu gis ay këru tasukaay xibaar yoo xam ni bëri na sax ñuy wax ni ñoom euh, état lañ fi nekkal maanaam lépp li nga xam ne nii état daf ko bëgg def ñoom ñooy Euh, liggéey li nga xam ne moom mooy Charles Blot boobu bëri na ñoo xam ne si ñu ngi koy wax ñu gis euh, yooyu lay nga xam ne ñooy kër këru taska këru tasukaay xibaar génn di dëggal ni maanaam moom dafa nekkul ci yoon alors que moom am na ay loi yoo xam ne si nii moo koy protéger en tant que journaliste investigateur da nga gisee arrestation boobu ah, arrestation bi daal li ma ko gisee mooy li ma waxoon rek affaire Charles Blot la affaire kidnapping la affaire loo xam ne ne du dara lu rek bëgg a xañ nit ki mooy xalaatam li président Sonko a lu a ñoom léegi xa ñoom léegi miimatuñu ay sàcc lañ maanaam sàcc bi léegi li muy miim mooy sàcc na waaye kan moom a boole loolu lañ jàppe Pape Alé Niang Pape Alé Niang nee da gën a sàcc ñu ne ko li tax nga ñuy boole moo tax dañ ko jàppee man nag ma ciy dolli ne moom lañ ko jàppee mooy ñoom seen enquête seen enquête interne bi ñu defoon ci dossier Adji Sarr bi mu daal di fiit la doxoon ñu ko def mooy fiit bi fan la nekk li tax ñun ñu def sañ Sarr bi am gi faal bu dee bu dee versé ñun xam ko lan moo tax Macky Sall lan moo tax ñu def benn complot benn complot ne nit ñi xam ko xam naa loolu moo tax ñu def seen enquête loolu moo tax def seen enquête boobu ñu doon def loolu moo tax ñu def seen enquête boobu ñu doon def seen enquête boobu loolu fajalu def enquête waaye boobu daa far fii moom itam yokkaaw toor ca lañ doon lijjanti Pape Alé Niang daal di koy rewee wax ko au lieu que xam naa ne jamono ko waxee moom wóor na ma ne jéem nañoo xool vérifier seet mbir parce que mënuñu ko xam ne ñu ne léegi nañ xool kon maanaam bu bu ndox mi walee xur xurwa mi taay jéem faa làmp fan la bë fan lay balle Pape Alé nag mooy xur wa ndox wa ndox may daje ñu ne fan a jaar ngir xam fii fan la xam ngeen mee fa baax waaw léegi nag si léegi nag bu ñu demee ci Pape Alé nee nañ ci fanaan téléphone yi dara ñu fanaan fa dara waralu ko lu jéem a xool ay source source yi muy rawee fan la jógee ngir ñu mën a topp ren boobu ngir mën koo dog coow ñu noppalu si c'est parce que mënuñu koo xam parce que Pape Alé sécurité na boppam te daanoo ko wax nag ne daan man lii waaj naa ko bu yàgg yàgg ndax ma waxoon ne séquestré ngeen Ndeye Khady Ndiaye ngeen ab téléphone euh, mooy bi ñu téye otom ba ci yoonu Kaolack bi ñuy jaale seen yooyu xam nga na ko ci biir benn live ne man bàyyi naa xel ba moom ñoom ah, pour ñu am ci réussite bi gën du mën a nekk waaye nag la ca ñaaw te en tant que un investigateur journaliste boo xam ne journaliste bu xam la bu ngeen fàttali ko bi ñu jàppee fii Ousmane ko indi Sénégal moom la américain jëloon comme témoin moo jël fii ay profil américain yi daal di leen présenté wax leen la am na benn kuréel boo xam ne waa Afrique Ouest bi ñoo ko seq en tant que journaliste investigateur am na benn journaliste wax na ko jàpp ko da parce que xam nañu ne ñoom BBC maanaam euh, benn organe la boo xam ne bu état du Sénégal duggee ci guerre moom dootu doole ndax ay nit ñoo seetaan te intellectuel am xam-xam ñoo seetaan ba état du Sénégal commencé di wax naan bis dëgg def na leen li ma wax bu ma déggaatee ci yéen ku ko wet dinaa révélé yeneen yu ko gën a grave parce que vidéo bi teguma lépp lu ci bari ko dagg fàññ ndax dégg na ngeen kenn ku bokk ci membre état di wax tudd BBC milliards Pape Alé Niang génnewut génnewut loolu yi as ndaw ko benn journaliste fi nekk moo ko wax journaliste ndax gis ngeen état du Sénégal jàpp ko moo tax ñu jàpp Pape Alé parce que Pape Alé Niang moom mooy làkk ay wolof Pape Alé Niang moo dëkk Sénégal a protesté moo parce que lan mooy nekk na ci lu dul dëgg mu wax ko ñu ne ko li tax nga jox ko siis boo xam ne Mamadou Seck xam ngeen ko maintenant maintenant Sonko lañ ko jox dossier mu delloo ko parce que xam ne ne lii ni bu ci duggee du ci génn te lam ci doon daw it ñëpp da ngeen seen wér parce que siis boo ko jëloon yàlla na gis nga ko yàgg na ko ban maam di jël bureau moom di ko bëgg ko soppi dex waaw fu xam fu buy jëriñ dara mu sotti ko fa xam naa ne keroog la ko boo demee bu gisaatu Sonko keroog la ko mujj def kon maanaam arrestation Pape Alé bi moom ku ne boo xam ne daanaka xanaa tey lañ xam journalisme ak professionnalisme daaw a ba fa yem ci àdduna Pape Alé di ko jàngal xalaan ngeen ci àdduna Pape Alé Niang daawuda miin wax lan mooy journalisme lan mooy prérogative fan journaliste a yem fan la war a tàmbale loolu def ngeen Pape Alé Niang daawuda miin dana moom daa bokk ci salle bleue dafa bokk ci euh, groupe xam ne ñoom dañu fay impôt bokk ci groupe xam ne dañu fay Sénégal ngir lekk Sénégal ah, lan la Youssou Ndour doon di bañ troisième mandat 2011 tey jii troisième mandat baa ngeen di ne kët ma jën mandat taxawal ñoo ay 7 milliards la ko jox ko wax barki dem ko dégg benn benn waay waaye moom wóoruma parce que li tax ma moom moom ci boppam Amène Ndiaye moo ko wax ci seen télévision moo ko wax ci directeur bi keroog bi ñuy def impact boobu impact bi ñuy gis seen seen seen entreprise nañ bu ñu leen mënta jàngal ñu seet ay professionnel di parce que nit ki bu fekkee ne yow bëgg bëgg muy wax loola neex képp tax même bu xamul dara da koy bàyyi ci sa antenne muy wax loolu bu mu ko yóbbee am na koo xam ne jëmut fenn te xam na dara te mën naa xooxi nit mën na laa nëbbal sa caay-caay boobaa indi ko moo gën nga teg xam ne sañ bu ñuy wax ah yóbbu nañ ko nag maanaam mandat de dépôt su mandat de dépôt defe naa ñu bi xaw ma yaakaar na instruction lañ ko lañ ko yóbbu kon déjà bëgg nañ ko fàttee a weer wala diggante bu yàgg waaye Pape Alé daal na xam ne moom la ma waxoon ci Imam Ndao laay waxaat yow wàcc nga boo waatoon nit wàcc nga maam Sénégal yi nga doon yee xam nga ne yeewu nañ

parce que sa gërëm kaso moom lenn la mooy yonent yàlla Yuusuf alayhi salaatu salaam boo xoolee ci moom rek de boo xoolee tooy keroog bi mu taxawee temm na moom nga dem taxawee temm na maam dëgg day feeñ ci société bi lañ koy yóbbu kaso aussi la même chose yonent yàlla Yuusuf lañ koy yóbbu kaso ba tey jiyéen ñi xam ngeen du dëgg ala nal xasatal xaq ana raawta an nafsi wa innahu la min asaadiin daanaka li nga xam ne lam axonahu bil xëy bi wa ana laa yahdi al xaa'iniin jàngeen ko loolu li ngeen ciy déggee rek mooy dem kaso tegtaliwut na yow yaa tooñ jëlem nga ko dem ñaari kaso dañ fa yóbbu ne ngir néewale ko doole dañ fa yóbbu ne kaso ngir noppiloo ko waaye ngir déjoo ko waraam mën xel a ak suñuy xol di ko jaruñoo waxtu wu ne na nga yëg ne sax nekk ci prison bi daanaka amul solo li am solo mooy nga doon wax dégg nañ ko doon xam la nit ñi xam nañ ko fa nga doon jëm la nit jëm nañ ko kon boo doon boo waatoo nit la nga dégg woon nit mat na sëkk waaw kon daal li ma am comme euh, jaaxle fi ne nii souvent ma bett lool man d'accord naa jàppale Macky Sall waaye ci dara desul nag ñu war a tëj Pape Alé Niang mii nañu xalaat ne Pape Alé Niang buñ ko tëjee ci ñoom lañ Sonko nee na nagu ñuul wa nagu weex wa nagu xonq baran gaynde gi bëggee lekk dara sa bara te Macky Sall mi ngi comme ci joxoon xaalis te mënoo ñàkk mënoo ko ñàkk waxal itam léeg-léeg nga nga daw yenn question yàqul dara yàqul dara daw yenn question yàqul dara daw yenn question yi mooy mbirum Pape Alé yi day leen ko daw amul problème day leen ko daw parce que bu ngeen ko fi bu ngeen ko jabuli sa du tax Pape Alé ab deram yàqu su ngeen bëggee mu tëdd ci kaso ba ilaa mi din du mën a nekk Pape Alé justice lay xaar ci kaso ba ci justice léegi de justice génn ko mënu faa yàgg ba def fa ñaari at ñaanu ko yàlla bu fekkoon ne maa injustice bi Macky Sall yor Macky Sall mu at doon ko fi des bu ñu waxee at ko fi des ñu jàpp na ñu dañoo xamul lu ñu wax waaye nañ jam rek la ca kanam xam naa nag bu dee comme maanaam mbirum euh, wuyu gi mu woon na bu ma top topp publiquement ñëpp di ko dégg Ousmane Sonko da faral di xam naa ne ku yàlla defal ni mu ko defal bariwut parce que yow na ci te buñ la waree atte yaa wax fañ la atte yaa wax waxtu fañ la yaa wax booy dem na ngay demee ak fa ngay jaar bi lan la ñu waxoon ñoom Ousmane Sonko dana dem wuyu par force ndax bañ ko wuyu ba dañ ko forcé forcé wuñ ko day ret forcé wuñ ko de dañoo xool bu bis boo ko neex mu toog wax doo ñoom dañoo ab guerre guerre boo xam ne wax naa leen ko fii ab dossier lañ bëgg dossier Adji Sarr ñoom weesu nañ ko xam nañ ne siis mënu jee condamné kenn bu fekkoon ne sax dossier la boo xam ne maanaam ñoom ñoo ko téye nii malgré bi du dëgg yaa ngi dégg waaye mën nañ ci tëj sawaay te Sénégal yi du jëngu sax attan nañ ko ndax ñoom tëjuñ ngir daa def mm. bàyyiwuñ nit itam ngir daa def ji ngir seen intérêt personnel bopp waaw waaye lii seen problème ci dossier boobu mooy dossier bii dara la ci yi supporté wu pour Ousmane Sonko dem ci kaso moo tax ñu ne woon nañ fexe benn benn am ci dëkk bi maanaam yëngu am police ak takk der daal yaakaarook population bi ci biir nit trois personnes trois

ñun sénégalais yi itam lu ci bari ñun ñoo ko def suñu bopp maanaam ñun buñu amee buñu amee xam nga gis ngeen barki dem boo jaay mu confiné nit ñi ci lii la mbokk na ko lii nga kooku defe nga ne bu fekkoon ne dafa jël ay ay ay ay complot ci jigéen ñi nga daan administrer politique dina ko nettali moo tax ñun Sénégalais yi ba tey lu ci bari daanaka lu ci bari maanaam mbir mi al damir yaxude ilayna yëpp ma lay dellu si ñun daanaka lépp ñun ñoo ko def waaw parce que ñun bu fekkoon ne am nañ matière bi bi ñu sonko di woo nañu matière leen matière leen matière leen yàlla xam ne ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog Abdou Karim Sall bi mu lekkee suñu suñu orix yooyu dootul ma du rees mi lekkaat ay ay 43 milliards waaye xam nga ne orix di jar 60 millions benn wala 50 millions dégg nga mu dem di jëm jëm ca parc ba di ci jël ngir ay tool yi boppam yenn yi yenn yi mu daal di koy ray daal di koy def di lekk mu jut fenn xam ngeen dana rekal dana lekkaat ba mu lekk na 43 milliards war ngeen koo gëm war ngeen jii bu fekkee ne dafa dañoo ñëw ah, arrêté garde rapprochée bi ci situation yi ñu doon arrêté ñoom arrestation moom yëpp lañ ci mën Sonko këram ca mois de mars 3 mars ba war wallaahi lancim dañ ko bëggoon a jël yëpp incité incité incité mënuñu ko jël yóbbu ñu war a dem des na levi levi levi immunité parlementaire biñ paree ñu ñu jéem a barricade Dakar ngir def li ñuy wax maanaam mandat d'amener en tant que juge bi jox ko te boobu ñëmewu ko ndax boobu juge même mu dikkee ñëmu fanaan këram fan la mujj fanaan fu dul ci benn kër xaritu ngir boobu nguur gi jaaxal na fépp foo xam ne jàpp na information mën na faa jaar fii ndax xamul

gis Ousmane Sonko di wuy ji fi nga xam ne moom mooy tribunal euh, police escorté ko maanaam maanaam police féete ko kanam féete euh, bi muy génn kër cité kër góor gi euh, tam policiers yi nga gis dañoo dañoo jàppalante ay loxo wër oto bi escorté ko ba nga xam ne yegg na fa nga xam ne moom moo di tribunal loolu ban jàngat nga ci def. waaw xam nga police parfois dañuy ne ci liggéey boo xam ne du du bokkoo liggéey ba ñu leen parfois dañu leen di sant liggéey ba bu ngeen demee xeexal bu ngeen demee rey leen buñ dikkee ba xam nga maanaam contestant boo gis wax di def lu ñuy wax euh, euh, maintien de l'ordre mm. am na ku leen a patron ba ci ñiir routière yi képp ci ne ci kaw yoon buñ doon ñaar am na ku doon patron bi buñ doon ñett am na ku doon patron bi loolu moom ñoom seen liggéey noonu la tëddee dañuy dem ba ci biir ñu xam ne lii nii buñ ci toppee ndigalul seen autorités yi wala seen chef yi dañuy indi jaay rek te Ousmane Sonko actuellement xam nañu ne maanaam dara xure ko képp réew mu euh, xam ne moom Seydina Isa doon nañ ba gindeeku a xëy daal def benn waxtaan sa diggante ñoo xam ne lii bu ci jàmm njëkkee mujj ci ñoom daañu leen attati leen rey ñu ne comme dee dee danañ sooke na xaar bi daal di gaaw waxtaan daal di tàppaasante daal di ñu xeex maam négociation bi tam dafa gën noonu képp moo doon yéene yi moo doon moom la ñuy ragal mu am ci seen digg ak Ousmane Sonko léegi nag la mu ne ñoom tey ñii ku leen gis xam naa kersi dana leen sonal dëgg la ndax Macky Sall ab xeex la la tax mu jël avion bii dem xam na ko daa bëggoon bu nit ñi rayantee nga xuloo xaa xeeroo ko ngaay du ko fekk loolu bëggoon far yàlla suturaal bu dakka dee di suturaal sénégalais yi suturaal Ousmane Sonko sutura soo xam ne macha allah mu dem wuy ci jàmm ak salaam ba ñibbi jàmm jàmm di xaw léegi nag nemee ko tur bi ah baax na na wéyal comme na mu ko defee comme ku mu a gis ko ne mu gis li moom lay posté mooy ay caméra képp ku leen song daañu la caméra am na solo lool man daal loolu laa bëgg a dégg waaye ku bu njëkk laa ko waaye du léegi ndax bu njëkkoon nañ ko jig ne leen waaye tey bu ko defee day yàq popularité tey jii kat caq bi Macky Sall ko caqab or waaye na bu yàgg Sonko nga caqab orom nag donc nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan bu dee am na ci yenn tam yoo xam ne si laajuñ la ko te nga bëgg cee wax bu ko defee ñu waxtaan ci euh, daal di tëj ba beneen euh, yoon waaw man na li may tëjee waxtaan rek euh, lu gàtt lay doon bu ci àllaan rek mooy Macky Sall dama ko waxoon di ko waxaat mim réew ñoo la faloon ba ñoo la faloon njaane itam falaat nañ la ci 2019 na nag pal googee jeex na tàkk te yaa na woon jeex na constitution bi nee na na te yaa ngi def lu ne ngir maanaam jeex gi yàlla dogal ñu ngeen bind ko wax ko ngeen na fi dañ ngeen ñu beesalaat leneen ci bopp nit jaax nit ñi mooy lii nii mënta dañ mënta jeex ngir jàpp ay yambar nga ko seqal barki alxuraan mbir yi mënoo fexe ba am ci li nga bëgg bëgg mooy nga jóge moo la ci ba nga jàpp ne sa bëgg moom mooy yooyu bëgg nit ñi bëgg ko bëgg du ko weccee bëgg ak mbooloo mbooloo mi seen moo la fi indi yow seen ak bañate moo la fi jëlee asalaamaaleykum wa